برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان من تقول lawoo ñeel na ko Bachirou mbokk ci kaw suuf si waaye tax ngir yàlla tax muy wax moom bàyyi la muy wax ba maa xasatu illaa mawlaaya dama tax bi jubluwuma ci lu dul liggéeyal yàlla sama borom mu teg ci bunt ba gannaaw bayti ñaareel ba ba mu waxee ne sant ñaareel na ko wax ci téeréem bi ne moom man waxal jaam yi ñu dox ci kaw suuf képp ku dox ci kaw suuf Likanya ang Baik itu kebijakan kebawahan dan di mana sisi kriya pengisiro Surah adin dan basiro baik lip tunak hamdan ini dale alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah amakono semua ndax amoo ci yow may xaaj mooy moo mën yàlla di bàyyi la moo ne sama cant gi yàllaa ko moom na leen la jëres yàlla ko sama cant gi bon yàllaa ko moom te ne ni cant gi rek day la yàlla moom ci yow te amul lu yàlla moomul ci yow amul lu doowul lu dellu ci yàlla ci yow moo tax bàyyi di wax ne cant gi wax nan waaw xam dan day wax lanci sikiri yo walla ya, rek kay borom wakkitire en bene ko suru abak lanci suuf ci kaw sala ci ko ba ci kaw suuf ngir gëstu samay jeexit ci samay jaam la ko ñaan la ko ba suru mbekte ba demee ci tere ba la mu naan ina ilal mafaat boobu mu nga dalay jaxandal waaw boo demee ci tere ca bayti ba muy wax di dama kuntu mahmudan bi arfati حمدت صمتنا من برهام إلهي حافظ برمارك te xam a soit yi te sant ak jëmm jëm sant ma ko ci sant ak lami ñi jaam waaye dama ko sant ci jëmmi tax mu ne xam di soit yi dama kuntu ba ma nekkee man barhaamu mahmuudan di bu ñu sant fi arfati ci dañ may xamal li ma xamal waaye ne moom yàlla sant na ko bu koy xamal la ko xamal moo tax buy sant yàlla du ko sant ci yàlla waaye nag teg ci téere bii ne dinaa ba mu sante wax ci moom sant nee suma salaat wa salaamu sarmada ala nabii Mustafa Muhammada xam ne muy nabi waaye de noonu laa ko waxee waaye nabi lu dul jàmm du ko jàmm rek lay am de ndax mooy ndàmbi jàmm yi moom ndàmbi jàmm yi moom jàmm nee na kooku di jaaxal lu dul jàmm

indingi nga xam ne ñu ngi gën a naan ndax yow doo ko war a day te lu doo ma wax day amiinu baahi mooy amiinu baahi mooy ko yàlla wóolu ko mbaa amiinu waxuma keneen bu keneen wóolu de te yàlla wóolu ànd ak man wa min dakar حين سرت جاء خير الورى وباطن أبا قلنا جبريل وعندك moo tax ne Jibril ma yàlla wóolu moo ànd ak man doon ma de waaye bu may bàyyee ko Dakar ba avion bay jot ginnaaw gën ji mbindeef ñëw na ci biir avion ba leeralal man lépp loo xam ne lii am ci sama tukki mooy xew ci sama tukki mi rafaqani min kawlaxal aminu foofu mu Jibril la wax wa aminu dahira amin waaye wa min Dakar xëy ba may jógee Dakar xëy na ba avion bay naaw jaa ñëw na xayrul wara gën ji mbindeef ada mu ngay sama batin ci yoon wi ah uji ji bu maa ngay wuyoo ji nga naan ma yaa ngay wuyoo ji daawati sama woote di tey uji ji ba ñu ngi koy wuyoo fan la daa Conakry ca tey Conakry kama xamaani allah comme ni ma yàlla yenee xan manaakiri ci bépp paye lépp loo xam li tey yàlla yen na ci paye jaam ak bëgg man ma

yëpp ba tey mu ngeeg man ah ma jóg di ndokkeel yàlla suñ kii laajati na ko la yàlla te yàlla amul kenn du la waaye moom fu bàyyee ko nag ba ma yeggee Fuuta ah keroog mbir yee feeñu na ma dëgg feeñu keroog laa gis ba la ma doon tawal lépp feeñu na. dama doon ñebe ci yàlla lépp jot naa ca moo tax mu ne bi fuuta jalaa ca fuuta jalaa xam ta jalaa feeñ na jalaa magam ga waa ak wallahi tedd na mawlaana sama borom ma doon o lépp jalaa keroog ta jalaa jalaa waa asta mawlaana wa sakki jalaa ca ko lépp feeñoo nee na feeñu na ma feeñu bu amul sikki sàkk tedd na mooy sama borom lépp lu ma ko doon tawal keroog jox na ma ko lam may jox lépp wan na ma ko ba mu wóor waaye nag dëkk ba ñuy wax baabu la bala may gamatee nag ci jaamam bii di baraama dama fay yàlla may keroog ma suma koo gis man bàyyi te ni dootu ko gis ba mukk tax ne bala ca tam mat na akan lenin wicce bala bala ma don nyan lihat bas mayka jaman di barha ma mara aha khatullah ma masuk masul ba wa ndek rut Jadi ba nuk ya ga fa jam tinka asfani di prakati ini al anami ko me wati tinka mo nga febar na sama doktor ba Anak ana kana kalau fajj kam la يستفيد من أطعامه ينجكم من ببركات سيد الأنام آه cikin kada ya fawa sama jangoro dere ana kan kuuro mo ngere ci barke so ah tak mo tan ci sar man wa shabani وهو دائي ليس مجعور ودواني وليس مخرج قدراني جندي مجعور بيونك من بمسك وشباني صعب قلنا ممور تصار من واع بالمونا دبي دبي بدمت جتنك كده وجنا مبانفار وحجر جتنك قصفيت من أصفاني ببركات زيد الأنامي ذكرت الله أصلاح لي مريد من يريد نفا لدينه ومن يسوده Asakali kaunandal na muridu ñep ñu namon man yuridu ku ci nekk lo bëggoon keroog jox naa la ko ba nga doy defuma ko ngir na fànn diini yi ngir kenn ku nekk ma jëriñ la ci may nandal gaaya ba man yeesoogu ak képp koo xam ne may na nag di omar ba matalalee keroog jumaa ja maa ko jiite waa tënk góor ñi ñëpp daa di daje di ma laaj ma leen tontu keroog lépp luñ ma laaj fóote ak saa ngi yëpp keroog toog nañ ku ci nekk loo mu sa xalaat di ma ko laaj ci tënk ma lay tontu moo tax mu daal di ko gàttal ca béykat ne ak saani yal amiru umaru bi jami kasaari jaalul oxaroon ñi ma dalaloon waaye la nga fa xew bañ paree aw xaaxumu danañu des ñoom ñooñu xale yooyu almawla yàlla dana leen yàggal ci jamono musawidiina ñu nekk ay sangu waaye ngay ñaan addaama yal na saxal rabbi borom sama e eh, suxum seen ak tedd wa saada te dolli seen ak ah, teraanga wa xafal amira yàlla làq buur ba omar ma araada ah, may ko lépp mu bëgg wa timbo bàyyi nag jógee na tin ka jëm timbo wa timbo fi masjidihim xoj tamu di yàlla da amar sadihim ne ba mu yeggee timbo mu di julli ja seen jàkka ja ba mu jullee ba pare mbooloo mu yëpp génn wër ko ñoom ñëpp daal di ànd nekk jëbbal nañ la suñuy mbir àdduna àllaaxira ñu ngi ci sa ginnaaw tax mu ne wa da amar sadihim Ya mau ya ge. Bayang aja punya cari sampai pak. Pak Imam di bugi hebat kapar reka muda di kureki. Imam di bawah kapar yang mantan jangan kefati mau Muka cikanan pohon jaga nana nah, ibu menyewa kapar mantan jangan kefati ya. Muka cikanan menyewa mata kapar mantan jangan kefati ya. Bayang kalam bujak kini menyewa madari sebut waktu mana Allah akbar nyepuk ya semua kusbolong. Nah, Tadi tak hajimin barba kapar. jiite leen julli boobu am na ñoo xam ne dañoo jooy keroog ba julli wuñ ci jàkka ja dañu génnee ñu ne ñun dee xamul lu ñuy wax wala lu ñuy def waaye jékkoon nañ ne suñu bopp ab naa àllaaxira tey ñu doon say jaam moom la woy ci woy di yàlla ba masarihim timboo ba ma jullee ca seen jàkk sax xaraamal naa fan nelaw ci seeni kër waaye mu jën mbir ma delloo ci yàlla ndax mooy fayda tijaan yi وقلت واي مانغنان يا رحيم افتي يا برم يرمانج يا كريم يوم أجت أبجت يا بر يوم مباخ يا لطيف يوم نيوانتمي يا عليم يوم خم تخلو ميكت يا الله لما بقت ترجعني تلو متنا مدينة كمدينة سالما شجع مركز السر القدمي وما يبالي فوق من دم بمبوتي متلي وكي متلي ولي ولا من اسمه يبالي فوق موي مركز السر القدمي موي سانتر بني يري ولي su ma xaani maa foofa danay màngee comme koo xam ne dootu jeex ci àdduna wa taj boroo tafrot yàlla te nga dindi damm ga yaa ca madina ndax madina barxaama xat faqidat ñàkk na xaami ci xat mii bu dóorun ay jant wala nga ne bu dóorun ay weer te ndaxaa yu daan feqi ca madina ndax fekk dégg bëri na te mbas ma métti rabbi yow sama borom ayaa rabbi waaye sama borom salaata farxa bul gental ma dina faa weetan def ko muy ndend li ma lay ñaan mooy wal tuksiran na nga bëril xayraha yiw wa waaye bul wàññi na wa soxlahum sotti leen al arsaaqa warsa bi ya'muruna dundal leen xam nga ne kat jaamuhum suñu booloo ñu waa Madina wallahu ya'buduna yàlla rek lañ fay jaamu ñu booloo mooy waral seen jox leen lay ñaan Senegal, Senegal. Hawa, ifadakiyo nyip atauni dikal na magyan na kunek. Aywa akaso nye de jene atayo kayo ang ni. ci Iba ang ni bamalan ko ni mayor. Wakaat li pastun ba ay dal habde wa kullu fele khaliq di mardi. Baka hampat na wakahanyo na. Kalau man de amna aman parhaman di niya al na ma Pastun. allah bi tawal rek wa ayral qabdi wa xamne mo gën sori la ba di gis ak lepp lu mëna doon moy sori na samay talibé te ñepp ngay jël ñu bari ñi ci gëna bari ñepp ngay jël aduna wa yalla wa kullu fi'lin def yow aji bind sama biya man baay de mar de lolu da ko ci man dama wéddi def tobal bay na nga wo surtout tobal fa ko ngay dox Nahu krosa amang kejam jantai tu banyak krosa. Wafalaknan, kalau bumage krosa, ya, kan wak krosa nyepok itu mayake. Matah nyungawak, yang jokan nekan aja ngay jatali. Bayani lenyi wak darah gunung kue refet kuri krosa. Matah menewar nalen. Takkan ngayani sama wadu buat nak marau suri, marau kain, Kerawan nyima, ayo nyungi dewan nalen jayi képp ku ci amoon preuve yabal sama preuve fugal naa ko képp ku ci doon am def naa la ngay aarif képp ku ci doon jaayal def la alim wax ci ne wa prosa wa bitt fiha usran kullu hina jitum قالوا كلا من بلغونيه فما أحسن ما خال رجال فما أعصهم ولم أقصر وأرى Da'autu Rabbi an yahum mahdi Kubat bara wa yahamudu nasai ni Allah Anginya sama borong Da Bigi nga xam ne mata xajo pour Jaaw sore Yàlla sama bi ngu dee mooy dundal xam-xam Ak dundal sunna Ndax sunna pat fekk naa وتعمد بوهنا يحيي بها العلم والسنة التي أماتها جعلها يعلي ملتي waaye nag ma jógee fa jëm kankang allah dëkk saxanta maadi ak la fa xew waaye nag allah ma yeggat kankang nag saaxani nandal na ma alla teefu yàlla naa wa kankang ba ma ah ba ma jubee yàlla kii latif nandal na ma moom wér daa rek ñi ne ay soldaar a koy wër ñi ne mbooloo mu kenn xamul fu mu jógee koy wër mu ne bu fekkee kii dafay jaay ne moom mu nga jógee ci Seexuna te moom dafa toog sirif dëkkut fenn fu dul Sénégal foofu yëpp dëkkul fenn lu dul waa xaar leen ma ko lu mos a gis kii du ñibbi daal di jàpp ba pare jël kuréel ga àll ba ba mu demee jàpp tur ba te bu rafetlaan ñaari kat may ñaari dara mu defaat dara mu defaat dara برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن